ay ndaamaar yuy raam ay nit yuy wër ndomba oto yi ngir daal di ci porox ndool am ci yoon gaare fu la neex te amoo kaayit mbalit ñu koy seen fépp dal leen ak jàmm ci gox yu fasantiku Dakar Plateau marché bruit bu dul jeex lañ fay nemmeeku saa su nekk ña fa yeewoo nag mer ba futt lañ daal di def am fi ay xale rek ñoo fi nekk te rawatina ni école bi tijji nii ko quoi. pour xat xataay bi moom mooy li ma la wax rek. pousse-pousse yeeg scooter yeeg cag-cag yeeg ak oto yi. dem beeg dikk bi daal di loof waral nag eh, ñi fay nemmeeku ay coppite. pour nga xew da nga yóbbu dimanche boo amee doom mekkee mercredi jeudi. dimanche nga yóbbu xew bi parce que dimanche ngay mën a am libre. parce que fii oto lu gën a tuuti loo koy fay 2000 la amoo mille dafa xat pour mu ñëw problème la. léegi comme saturé na pousse-pousse yi ñooy tane di nga leen fay au moins 1000 francs ou bien 1500 pour nga yóbbu bant yi machine. farawu dëkk bi nag bëgg jàmmal ñi yeewoo ci goxam xam le ni bésu set setal danañ ko amal gaawo fukki fan ak benn ci weerum novembre mu mel ni rek dalul xelu bile menuisier. gën a métti mooy chaque année dinañu def set setal soppi xaru kanamu réew bi mais amul suivi parce que liggéey demee ba amul suivi moom amul sens. ñi yeewoo ci gox bi di tàllal seen yoxo seen farawu gox maanaam Aliou Ndoye ba mu daldi di jël ndaw yafa yeewoo ba ñu yeesal xar kanamu dëkk bi